salaamaaleykum téléspectateurs yu Equivox TV bégte la ñuy am tal di dalal Yankhoba Seydi nekk secrétaire national chargé de relations internationales bu parti réew mi nekk en même temps aussi directeur de l'école du parti bu réew mi. maa ngi leen di nuyu. di euh, gërëm di sant itam ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñu may nopp waaye tamit ñoo ñu seetaan mm-hmm. incha allah jàpp naa ne euh, li ngeen bëgg. Euh, wala boog li nga xam moom ngeen jàpp ni war nañ koo mën a dëgg muy njëriñu askan wi su ci yàlla àndee li ma mën dinaa ko ci def. monsieur Seydi d'abord bu ma la doon laaj tey dama lay laaj la fan mooy base su monsieur Yankhoba Seydi d'abord. sama base Parcelles Assainies la. Mhm. ndax foofu laay militer politiquement donte mhm. euh, mën na amit yaakaar ni ñu bëri ñi nga xam ne ñoom ñooy samay mbokk yaay ñoo xam ne. Casamance la ñu féetee baax rawatina Ziguinchor ba ci euh, région de Sédhiou yëpp ñu ngi may ñu bëri ñu may woon ne ma mais mën ngay ñëw fii lu tax doo fi des choses comme ça mm-hmm. donc euh, loolu du problème waaw. léegi beneen question ma lay laaj gis mm-hmm. nañu fan yi yëpp réew mi dafa yëngatu ani lan mooy problème réew mi. Euh, bu dee réew parti réew mi bu dee moom la mm-hmm. problème bi daanaka mooy li may wax rek fan yii yëpp daanaka bi ma koy tàmbalee wax déjà mat na pratiquement ñetti at ci ginnaaw euh, ci diggante bi nag amul loo xam ne ni moo ci changé loolu lan moo tax wax ji amat donc problème bi leen na kese la du ñaar du ñett parti boo gis dafa nekk li ñu naan kuréel mooy ay nit ñoo xam ne ñoom ñoo jàpp ne bokk nañu gis-gis bokk xalaat bokk li ñu gëm am benn objectif ñu ne nañu dajaloo def benn parti ñu jéem a xool pexe yi nga xam ne ñoo mën a tax ëllëg suñu ne nañu dem ci fu ñuy tànnee ñi nga xam ne ñoom la ñuy dénk cër réew mi ñu mën cee bokk rawatina koo xam ne jàpp ngeen ne yéen kooku moo war a nekk seeni mbër loolu mooy parti teg loolu nag bu amee maanaam ay nit fu ñu booloo dajale am bokk xalaat bokk gis-gis am benn objectif di xool fenn ñooñu dañoo war di diisoo toog rawatina nag jàll bu gën a mag ci ci kuréel boobu muy toog di saytu mbir yi di xalaat di wesaare xalaat yooyu ba mu mën a àgg ci ñoo xam ne ñoom ñoo ko yelloo boo xoolee loolu nag ñàkk na suñu parti lu tax ma ne ñàkk na suñu parti boo xoolee leader bi nga xam ne moom mooy Idrissa Seck dafa toog pratiquement bi ngeen yéen ñëpp gis ngeen ne euh, après élection ñu bëri ñu ngi laaj animaux tekk bu ñu li ñuy bëree dinaan tekk tekkaaral bo boo xoolee du après élection puisque avant élection déjà ñu bëree toog nañu dégguñu ko bi ñu naan mais animo ñii di naan xanaa dafa tukki wala nekk fi mi ngi woon fii nee naa sànq président bi dafa jox lenge pratiquement vice présidence te vice présidence si kuréel boo man boo mën boo bu mën a doon vice présidence dafay assurer la suppléance donc ki fi war a nekk bu fi nekkul li mu war a def yëpp di convoquer nit ñi di conseil secrétariat suñu parti secrétariat nationale di bu ko bu fi nekkul bu la joxee lenge yooyu yooyu exactement nga war a def mais boo deful loolu yow matewoo sax dañ la dénk loolu jafe-jafe la loolu problème la ki fi nekk ci yor cër boobu nga xam naan mooy vice président mooy ki ñu toftal ci si njiitu partie bi réunion secrétariat national bi mu mujjee convoqué moom laa wax bi mu koy convoqué c'était la veille des élections législatives élection législative bi ñu falee député léegi depuis 2017 xam nga léegi loolu yàgg na léegi pourtant de temps en temps nga gis ñu naan réew mi def na ni réew mi def na ni foofu ay initiative ñi ko jël ñooy seeni initiative la mais parti bi toogul ne lii nañ ko doxal lii buñ ko def lii nañ ko wax lii buñ ko wax te loolu fa la ñu war a jékkee bala ñu def lenn man loolu laay wax fii ak defuñu ko ñu ngi def lu ñu neex je suis d'accord que euh, am na ku ma laaj lu mel noonu si euh, benn sa benn naataango ma demee ne ma mais seen cadre yi ñu ngi def te d'ailleurs yow mii yow yaa nekk modérateur u symposium bi ma nekk oui parce que structure des cadres dañu am lu ñu naan une autonomie structure des cadres ñoom bokkuñu euh, secrétariat national du parti mën na am sax secretaire national chargé des cadre bi paa ki ko nekkoon kooku dafa dem mooy Abdourahmane Diouf dem na amuñu amuñ am amul kenn koo xam ne nommé nañ ko ci diggante bi kon boog ñi fi nekk di cellule de cadre ñoom dañu am seen autonomie di doxal loolu ça n'a absolument rien à voir ak ndaje yi nga xam ni kilifte bu gën a mag ci parti bi war na koy amal te du ko amal loolu nag mooy jafe-jafe yi parti parti Rewmi sëgëm jafe-jafe yooyu gis nañ ko ci biir parti Rewmi est-ce que jotul Idrissa Seck mi nga xam ne mooy leader bi mu génn ci tekkaaralam ñëw dugg ci biir parti bi structuré ko ku nekk xam li nga war a def parce que parti bu amulee ay instance day am ay problème mooy problème yi ngeen fi soulever nii est-ce que jotul moom mu génn ci tekkaaralam bi ñëw gérer parti bi d'abord. ça n'a rien à voir puisque encore une fois loolu loolu laay bañ a dëgg quoi moi je ne dis pas que amu moo nommé diw moo deme diw moo deme moo nommé ñi fi nekk ñëpp ñu am cër ci bopp parti bi waaye boo xoolee moom ki mu toftal boppam ça veut dire que kooku jox na ko lenge yëpp tekk te kaaral bi ou pas warul tere kooku def li mu war a def te bokk na ci li mu war a def mooy ne waa kilifa parti yëpp ñoo lañu ñu toog bu ko defee ñuy mën di génne comme lu may wax ay communiqué sénégalais yi ñu ñuy dégg xëy na loolu sax bu dee am régulièrement mais nit ñi ñi ñi ñuy toogee di laaj id idi lu tax waxul xëy na loolu sax dina wàññeeku mais loolu yëpp daaw daanaka du am mais forcément nit ñi dañuy laaj ana Idrissa Seck lu tax duñu ko dégg man loolu laa bëgg ñu ba donc Idrissa Seck li mu nekk encore une fois ma ngay xalaat ay yoon ay pexe yoo xam ne ñoo gën ci senegal te jàpp naa ne bis bu naree euh, wax ak nit ñi su waxeek ñoom la nga xam ne moom lay togg nit ñi dinañ xam ne kii kat ndekk li mu noppi woon yëpp am na solo donc warul tax benn yoon ñu bàyyi suñu loxo ni comme ni ko xale di waxee bàyyi suñu war kenn ba warul bàyyi sa loxo dañoo war a fexe ba doxal parti bi anam ci anam yoo xam ne ñoo gën te loolu nag manqué na ñoo xam xamante dëgg loolu dañ ko war a doxal ñu fexe ba loolu am boo ko defee kenn du ñu xeeb Idrissa Seck si boppam du ñu xeeb puisque jox nañu cër ñu xamal ko ne ñun cër yi nga xam ne ñoom nga ñu dénk mat nañ ko doxal même boo fi nekkul puisque ëllëg bu fi nekkul yi tamit bu nekkee président de la république ñun war nañu gérer suñu parti su demee retiré de la vie politique tam ñun war nañu gérer suñu parti mais su fekkente ni nii nga xamante ni ne ci diir bu gàtt rek moom noppi na kenn gisu ko ñun suñu parti bàyyi la nga xam ne moom lay def mais ça veut dire que ñun euh, kenn waruñoo mën a jox ñu mën a doxal benn parti loolu lay wax. est-ce que tamit bu ñu xoolee d'après li nga wax nii est-ce que yéen ku ci mel ni yow mii sa wax laay jël exemple amoo ci part de responsabilité bu fekkee ne vice-président bi nga xam ne mooy Déthié Fall doxalul lu mu war a doxalee est-ce que jotul yéen ñi nekk ci ginnaawam ndax benn nit moomu parti yéen ñëpp la kuréel la comme ni nga ko waxee jotul ngeen taxaw. xëcc ko revenir ko à la raison ne ko nii la parti bi war a doxee s'il le faut sax ngeen dem congrès mais man loolu laay def nii man soo ma laajtee sawar naa ci toppal li may li may wax di di di ko dénoncer te jubluwuma ci lenn lu dul parti bi ñëwaat ci yoon woo xam ni su ci tegoo rek yëpp normal loolu moo moo tax puisque quand même bi ma koy jëkk bi ma ciy jëkk alerté boobu yàgg na presque trois ans ma toog trois ans kenn dégguma te la nga xamee la la ma doon dénoncé yëf yi dafa gën a yées li ci amul lenn loo xam ne moo ci gën a rafetaat mais lépp dafa gën a yées moo tax ma ne lii loo comme ni ñuy waxee rek euh, lii raam ci ñag bala jëm bu fekkente ni dañuy nar a toog ràcc kenn du wax dara ñuy bàyyi yëf yi di dem mais loolu mooy ñun ñëpp ñu jël suñu bagage dem feneen te loolu waruñu ko def puisque li ñu fi sacrifié ak a bëri kon wax ki nga xam ne mooy vice président man duma ko tudd puisque ñu bëri au début dañ doon jàpp ne problème de personne la c'est pas un problème de personne man ama benn problème ak kenn mais problème d'institution la problème de parti donc moo tax toujours bu may wax damay wax vice-président maintenant nag journalistes yi ak ñeneen ñi nga xam ne temps ñoom ñooy gis tout de suite que ah bon de toute façon vice-président tel la mi ngi tudd tel loolu amul problème mais fii ak tudduma diw mais vice-président laa wax yëf yi tënku tënku vice président lii cëram mooy mu wooñu nañu ñëw leen toog bu defoon loolu man li ma wax ci biir ci bitti nii li ma leen di wax nii duma leen ko wax ci biir laa koy waxee parce que ñu bëree am na ñoo xam ne ñu ngi doon naan bëriwuñu sax naam parce que benn petit benn groupe bu ndawal waaye mais lu tax li ngay wax ni le linge sale se lave en famille lu tax doo ko wax ci biir mais ci biir fan su ma koy wax ci biir fan mooy neen le linge sale se lave mais xanaa kañ booy def booy fóot day fekk nga lépp mat ndox mi nekk fii saabu bi nekk fii euh, basin yi lépp daja lépp nekk fii mais bu yooyu bu fi lenn nekkul na ngay nak ngay fóote loolu am donc looloo tax may wax man sama responsabilité pour man man loolu la puisque cër bi ñu ma dënk wàll woowu joué naa ko ba mu mat sëkk man la ñu dënk relations internationales li ma ci def maa ngi sant yàlla ba boss bi si boppam remercier na ma ma gërëm na ma ci wax dëgg yàlla te amul lenn loo xam ne jàpp naa ni euh, defuma ko même cër bi ñu ma joxoon sax avant muy formation la ma ci commencé woon déjà te parewuñ ko mu am li ci xew te ki nga xam ne actuellement moom nekk vice président am na ci part de responsabilité loolu itam xëy na bu jamono demee ba loolu wax ci jotee dinaa ci wax mais ah man joué na sama rôle parti bi fexe naa ba ma ubbil ko bunt yi au niveau africain yóbbu ko au niveau du réseau libéral africain ba mu am adhésion a Marrakech et à Johannesburg maa ko doxal ba mu mat sëkk ñu nekk membre de plein droit ñu ne déet na ma yóbbu parti bi à l'international libéral nga xam ne moom mooy kuréel bu gën a mag bu ëmb ay parti ci àddina amul benn international boo xam ne moom nga yow yaa ëpp dayo bi international libéral am fexe naa ba réew mi nekk ci membre sama leader Idrissa Seck nekk ci vice président loolu maa ngi ko yóbbu en 2015 à Mexico City ci congrès ba ma dem présenter dossier réew mi ñu acclamé ma ñu nekk observateur ñu ñëw congrès bi ci topp ñu def ko Andorre diggante euh, Barcelone ak euh, euh, le sud de la France ñu def congrès bi nit ñi nañu mais yéen ñu war nañ leen mën a jox membre statut membre à part boobu yëpp. ñu ngi ni te ñu ñuy jëflante ak ay partenaires ci bitim réew noolu man loolu mooy sama cër joué naa ko ba mu mat sëkk réew mi am na rayonnement international réew mi am na ay partenaires ñoo xam ne tey tey bu ne nii ñoo ñu daal la ñu ngi nii loolu mooy sama wàll man joué naa ko ba mu mat sëkk donc pour man euh, xëy na parce que da ngay dëgg ñeneen naa oui de toute façon moom sax ana li mu def xëy na. yëf yi comme ni muy amee ci bit moo tax ñi ñi ko di duñ ko gis mais su fekkente ni bëgg nañu xam lan la mais nañ ma laaj rek loolu amul problème puisque de toute façon ndey mbir gi moom xam na waa parti bi ñoom seen bopp ñoom ñëpp xam nañu surtout ñi nakk ci kilifte bi donc problème amu ci donc man loolu laay wax man encore une fois li ma tax a jug mooy ñu fexe ba suñu parti mel ni am maanaam ambition bi nga xam ne moom la ko leader bi tracé mooy nee na dafa bëgg parti bi nag le plus moderne d'Afrique te loolu am na yoon woo xam ne tracé na ko ñu ñii xam nañ ko doxal ko jafewul mais nañu jóg buñ ko defee rek yëf yi sotti. waaw comme li nga wax noonu man mi sax question la woon bu ma lay bëgg laaj parce que nit ñi loolu la ñuy wax hmm. lan moo tax monsieur Seydi di dal ci kaw vice président muy Déthié Fall est que du place am lay xool. dëgg naa loolu foofu la nekk dama gis <laughs> dama gis temps ñaar ñaar ba ñetti yoon ma dëgg ñii naan wuy hmm. moom. dafa bëgg a vice place su vice dama yaakaar ni am na koo xam ne moom mooy dugal loolu ci bopp ñooñu noonu mais man su fekkente ni loolu la am naa ci droit d'abord pour dire am naa ci droit am naa ci euh, xam-xam donc bu dee xam-xam la am naa ko ci bu dee liggéey rek la pas-pas am naa ko ci bu dee légitimité la kenn ëppalewuma ci légitimité ci parti bi maa ngi fàttaliku ba nga xamee ni nag. jamono dox na ba Wade ak Idrissa Seck dem nañu ba ñu war a d'accord ba Idrissa ñoom nañu dem dalal Ablaye Wade cees ñu ànd man nag ànduma ci parce que ma Wade kooku archive yaa ngi fi maa ngi fàttaliku nag suñu ancien secrétaire permanent Daouda Faye mi ngi ma naa ni yow est-ce que xam nga ne yow yaay numéro un parti ma ne ko ndax la mu ne ma parce que bi ñëpp demee Idrissa si boppam bu demee bi mu demee ba ne léegi mi ngi PDS yow yaa bañoon nga ne demuloo fenn te yaa ngi di nga gérer parti bi ba am na journaux yi ko bind ancien journal Le Matin mi ngi koy bind ba léegi loolu na man maa fi nekkoon ñëpp dem nañu nen nañu dem daje def réunion les deux comités directeur ak bu PDS ñu dem man leen munu man ak li xewoon yëpp munuma dem passé passé maanaam le seuil du de la maison du PDS dem ma naan réunion duma ko def man je suis à Rewmi je reste donc xam légitimité boobu am naa ko te jamono yooyu kii ngeen di tudd am na jamono yoo xam ne ñun xamuñu ko woon ñu bëre kañ lañu xam kooku yàggul donc ñi fi nekkoon ñooñu man mën naa la limal kenn ku nekk benn benn ba ba mu jeex takk mais ñun soxoruñu ba pare ñun joxuñu suñu bopp cër bu patron bi demee ba jàpp ni diw mii donte bu dee dañuy wax sax sur le plan historique walla tel autre plan xëy na yéen sax am na li ngeen am kooku amul mais bu xoolee loolu yëpp mu ne ba tey man kii moom ma doy pour post bi ñu ñëpp ànd nañ ci ñu ne ko d'accord ñuy topp ko donc gisuma lan moo war a tax may xëccoo man du ma xëccoo ma dara liñ ma nome yëpp man newuma patron bi nommé man lii nommé ma dafa xool ci si ma la ma mën mu dënk ma ko te amul benn poste bu ñu may jox si parti bi loo xam ne mënuma ko gérer suñ ma joxee poste présidence su partie dinaa ko doxal doxal ni mu bu mucc ayib naka noonu ci ak yeneen poste yëpp donc awma benn problème ci wàll woowu ne way damaa bëgg a place wu diw non c'est pas ça qui qui m'intéresse man li ma intéressé mu fa naka lay fexe ba ñu am yoon boo xam ne suñu partie non seulement dina taxaw dina dëgëral taxawaayam ba mu nekk la premier partie ci Sénégal waaye tamit ñu fexe ba suñu leader nag ñu yóbbu ko fi nga xam ne moom la yàgg bëgg mooy poste numéro un Sénégal ñu yóbbu ko loolu suñ ko amee man sama jaan wàcc na loolu mooy loo pour mën a def loolu nag looloo tax may may artu ba pare di di di dénoncer ba pare di invité à ce que ñu ñëw puisque yooyu ay observation c'est du ay critique sax gis naa ne nit ñi yenn saa yi dañuy def ay amalgame lii observation la gis naa ne toog nañu biir sangam. kenn wootewul ndajewu euh, kilifteefu parti bi mais loolu du yoon nañu daje loolu du critique xanaa kañ ku jàpp ne loolu critique la yow am na dëgg-dëgg bi ñu ci am boo xam ne ñun amuñu ko man loolu mooy li may wax te nag c'est pas difficile à comprendre loolu. gannaaw gis nañu ni nga waxee léegi sentir nañ ni que ni gis nañu ni am nga discipline parti. parce que bu fekkee yow nga jiitu leen foofu ñu ñëw nommé leen te boss bi moo leen nommé nga ne waaw gis nañ fa discipline de parti mm-hmm. léegi kon ñu lay xaar est-ce que kon bu dëcc ñëwoon tey tey jii pour ngeen toog waxtaan di nga mën a accepter encore une fois du affaire u dëcc dëcc su ma ñëwoon su ñëwoon ne ma nañu toog mm-hmm. dama naan ko à quel titre su fekkee en tant que Déthié Fall la nañu jàpp ne li ñuy wax du doon mbirum parti mm-hmm. su dee mbirum euh, dañuy dem xaw ma def lan dañuy dem baali wala dañuy def leneen wala d' accord dañu ne ngént d' accord mais bu dee mbirum parti la nee ma man damaa ñëw en tant que vice président bu boobaa si naa ci taxaw mais soxlawu ko sax puisque encore une fois li war a tax loolu am mooy wax naa ko su nekkee ni waxuma koon ba mu siw bu ñëw ne ma ah lan nga jàpp dama naan ko da nga woote réunion secrétariat national puisque wax jooju encore une fois pour ñi nga xam ne ñoom ñoo xamul li xew loolu du Déthié Fall laa ko njëkk wax dama ko wax parti bo boosu parti bi ci boppam njiitu parti bi dama laa moom laa ko wax ci këram mu ne ma mais effectivement li nga wax dëgg la noonu la ñu war a dox ma ne ko que yow nga nekk fii ak nga bañ fee nekk war nañu di réunir le secrétariat national et qu'on se prononce sur les question et on décide ñuy décider li ñuy def li ñuy wax lépp mu ne man lii moom laa soxla lii la ñu war di def donc boo demee ba nga wax ko ndey mbir gi du bu <laughs> boo ñëwee wax ko keneen koo xam ne il est moins important que le mais loolu warul metti puisque wax nga ko parti du cœur parce que man noonu laa mel man sama ànd ak nit ci dëgg lay lalu gisuma koo xam ne man koo xam ne su wax dëgg taxawee duma la wax gisuma ko amul ñoom ñëpp de toute façon xam nañu jikko boobu ci man bu dee défaut la nag je reconnais que c'est un défaut si man mais man mënumaa ànd ak nit ma gis dëgg may aw gauche wala droite bàyyi dëgg ci dëgg loolu duma ko def